ñi yàlla mësam ba dal ko ci suñu kaw ila yamil xiyaama ñu ngi del siwaat gi yéen ci seen site bi ngeen xam di mouslih tv point com waaye seen jotaay bi nga xam ne ñu ngi ci daan ànd ak yéen ci jamonoy koor gi ki leen del si ba léegi ah tey borom téere bi ne bëgg ñoo jàngal lu jëm ci wàllu ngënee li naafale yi nga xam ne dañ koy faral di taxawee ci koor geeg yi ne mel ak kan moo ko yóbbu ci jàkk jeeg ndax commencement ba dañ ko daan defee ci jumaa gi ni mel tey ba ma toppee tey borom téere bi la ñu leeral wa man qaama ramadaana képp koo xam ne taxawee nga weeru koor ci ay naafila te bi nga koy def imaanan danga nga koo def ngir gëm yàlla waxti ban ak sàkkoo sellal ak sàkku yiw moo tax nga def ko mu ne xufira lahu dañ lay baal maa taqaddama li nga xam ne jiitaleen nga ko min zambihi ci ay bakkaar loolu borom téere bi wax mu méngoo nag jàngale yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa comme xadis ba la indi rek mu ne képp koo xam ne weeru koor jot na nga dundal ko ci ay la te bi ñu koy def jëmm yàlla moo tax nee na ko yàlla dalay baal say bàkkaar yu njëkk kon loolu lu bari ngëneel la kon mi ngi noonu nee naa wa in qumta boo taxawee fii bi maa tayassara ci li nga xam ne jàpp na ci yow nga mën koo def ci la fa daalika mu ne loolu marjuwun lu ñu yaakaara la fadluhu ak ngëneelam waaye naka na wa takfiru zunubi ak jéggal bàkkaar maanaam taxawaay ci moom waaye lu ñu ah, yaakaar ak jéggalu bàkkaar la ci moom mu ne wal qiyaamu taxaw nag fii ci ci weeru koor fi masjid fi masjidil jaami ci jumaa yi bi imaamin ci imaam lu ñu ci yaakaar yiw la waaye wa man saa képp kum neex tamit xaama nga taxaw ko fii bayt yi ah, ci sa kër képp kum neex nga dem taxawee ko ci si jàkka yi demandoo ko ci mbooloo yi waaye képp kum neex tamit nga taxawee ko ci sa comme ni nga xam ne moom la yàlla na tooleen nga xam ne kenn mënu ci dara kenn du dem ci jàkk yi nga xam ne lool jamono bu neex la woon ci julli ñëpp di dajee saafoonte ak yi nga xam ne daañu si xew yépp ren yàlla dogal ak lim dogal ak natt bi nga xam ne teg na ko suñ kaw ñu ngi koy ñaan mu gaaw teggal ñu ko moom yàlla xam ne ne moom rek moo ci man dara te ñun say jaam lañ yow yàlla ngi nangu nee na yaa ko teg yaa ko fi wàccee te ñu ngi gëm na yow yàlla yow dong yaa ko fi mën a jëlee kon ñu ngi toroxlu sukk sa kanam foog torox lu gën a suufee rek ñu la koy ñaanal yàlla nga teggal ñu natt bi ba nit ñi mën a delluwaat seen i yëngatoog kurti kurti yow rek yow xam ne ne yàlla yaa ci man dara beneen jaam kenn mënu ci dara ku yow te loolu àdduna bépp gëm neen ko tey kon yow yàlla ñu ngi lay ñaan sa kàtt nag sa mbaax nga teggal natt bi delloowaat ñu seen jàmm ñim dal nga saafara leen ñim dal nga musal leen ay jaam leen jaam sañ ñaan borom yow yàlla ñu ngi ba tey yi wànq yi waman saa képp comme ne xaama fi bayti yi nga taxawee ko ci sa kër comme ni nga xamante ni la amee nar a amee ren wowwa loolu sax nee na taxawee ko ci sa kër yi nag axsanu nee na moo gën a rafet de li man xawiyat ci ki nga xam ne ah, dëgër na niyatuhu ak yéenem wahdahu moom dong ne képp koo xam ne sa yéene sell na dëgër na nga taxawee ko sa kër ne loolu mooy li gën a rafet ci ay tolluwaay la waaye nee na nag wa kaana nekkoon na salafu saalix ah way jiitu yiw yi na daan ko taxawee fii ci fi koor fil di ci jàkka yi bi ashri rakatin ci fukki raka summa yutiru bi salaasa wa yafsilu bayna shafii wal witr nee salafu saalix daanañ ko taxawee ci euh, jàkka yi wax ne lool ki ko njëkk yóbbu ci euh, jàkka yi ak jumaa yi Seydina Umar ibn al-Xataab la maa moo moo ko njëkk yóbbu gis na lii daal bu ñu ko dajee ci jàkka ji teg benn imaam ci kanam muy jàng ñëpp di defandoo lu rafet lay doon ca la waxoon ne ni amal bida bidaatu haasi bida bida rafet na ndax moom moo ko yóbbu ci jàkk yi moom Seydina na ibn al-Khattab nee na nag dañ ko daan def ci fukki rakka ak safa ak wiitar muy fukk ak ñett waaye nag dañ daan tàqalee diggante ñaari rakka yu nekk ñaari rakka yu julli sëlmal waaye nag noonu diggante safa ak wiitar tamit dañ ko daan tàqale waaye nag ku mel ni Abu Hanifa moo ne na moom la loolu la yusal kenn du ko tàqale dañuy boole safa ak wiitar waaye daal ñu mësëb bi imaam Maalik bi ñu miin ñun moom dañuy tàqale diggante safa ak wiitar bi salaamin ci sëlmal mu ne summa salaw summa salaw topp ñu julli banda daalika ginnaaw loolu nag sitta wa salaasina fanweer ak juróom benn ci ay rakaa xeyra shafin wal wéetar ci lu dul safa ak wéetar mu ne wa kullu lépp képp ci mu wax ni mu ne waa si on lu dagal la def fukk ak ñaar ak fanweer ak juróom benn yépp ne lu dagal na waaye wayu sallimu fii kulli rakaatayni bépp ñaari raka dañuy sëlmal mu ne wa qaalat wax na aïchatu aïchatu radiallahu anha ma zaada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ramadana wala fi xeyrihi ala isnatay ashara rakaatan baadaha alwitr mu ne kii def fukki rakkaat ak safaag witar muy fukk ak ñett nee na loolu dagal na kii def fanweer ak juróom mm, benn dagal na kon mi ngi noonu amar ibnu abdul aziz dañuy wax ne mooy ki nga xam ne moo gisoon na daal fukki raaka ak ñaari gars yi dañu daan guddal ba ci leen wax daal ñu yokk ko def ko muy fanweer ak juróom-benn léegi te di gàttal njàng mi mais ala kullin daal nga def fanweer ak juróom-benn ak nga def fukk ak ñett boo ci booleeg subaa wiitar nag moo tax ma wax mu nekk fukk ak ñett loolu daa ne lépp lu dagan la lépp loo xam ne da ciy am yiw la waaye jëlee na ci Aïcha radiyallahu anha nee na yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam musta paase lu ëpp ah, fukki raaka ak fukki raaka ak saba wéetal muy fukki raaka ak ñett ne yent yàlla Muhammad loolu daan ah, naafi la moo xam ci koor la moo xam ñàkk a nekk koor mën na di guddal jàng ba léeg-léeg na ba mu yàgg lool ba jël ci guddi gi waaye daal lu mën a doon daal fukki raaka ak ñaar ndey Aysa ne daw ko weesu am na ñu sax ah, daana julli fukk juróom-ñett ba dool ci saba wéetal muy fukk ak benn yooyu eh, borom xam-xam yi kon dañuy jàpp ne kon bu xataan la daan def ah, juróom-ñett ak fukk safaak weetar bu féexee def fukk ak ah, fukk ak safaak weetar muy fukk ak ñett mais ala daan day Aïcha loolu la saxal wax naa la fanweer ak ah, juróom-benn yi wax ne Omar ibnu Abdul Aziz de xaamisul xulafa wax ne nag mooy nga xam ne moo fi andi woon lool mais ala kulli yëpp daal def ko ngir sàkku yiw la ak tiyaabu ju bëri ak dolleeku tiyaaba ndax xam ngeen ne koor jamonoy promotion la lépp li ci waaye def ci lu baax rek borom bi dalay yokkal yiw kon yooyu yëpp daal bunt la yoo xam ne bunti ngëneel la kon mi ngi noonu daal kon xam naa kon ñu ngi ñëw taxaw foofu di wax ne lépp lu ci leer yàlla lépp lu ci lëndëm ñu ni ci wax la ñu ngi jaajëfal oustaz Sane mi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo ci technique bi waaye naka noonu di jaajëfal mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci site bi di raccord gi waaye naka noonu tamit di soññ ñi nga xam ne abonné guñ ñu gaaw abonné ci site bi nga xam ne waxtaan wu dugg rek ñu mën koo am ci nam gën a gaawee kon ki nekkoon ak yéen ci kàddu gi seen bokkam daara la Alioune Cissé in uridu illa al islaha mastataatu wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu كون سيدنا النبي كون